daje bi li ko waral moom daana am waaye duñu jóg mukk ci di ko amal ndax danoo dëkk ci réew mi di dund ay jafe-jafe yoo xamante ni nii ay at mi nii du ko dund te ndaamaatu moom ku ko wax xam ni dëkk la koñ la boo xamante ni koñ bu bëri am ndox ak ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg nañ koy dund lool. ca boobu ba léegi amoon nañ ci saafara yoo xam ne commencé woon nañ di ko ci gis waaye saafara ban ko commencé dafa àggut muy canal yi nga xam ne moom lañ fi commencé woon nu jàppandi woon ci. ca chantier yooyu noonu travaux yi bi ñu ko commencé dañ ko mujjoon arrêté ndax muy machine pompe yi nga xam ne dañ ko ci waroon a def. ca fii ne nii may wax yow ba léegi am na ci kër yoo xamante ni nii ba léegi seeni borom mënaguñ caa dëkk ndax li ko waral mooy am ndox mu fa nekk ca ndox ku ne xam na ne fu mu nekk ab salte dana fa am salte mooy indi jàngoro loolu moo waral woote bi ndax ndaamaatu doon na koñ boo xamante jafe-jafe yi dafa yàgg moom trop ca ñu ngi ci yuuxu kanaal bi bëlaguñ ko dañ ko doon defar mais dafa pariwut dafa pariwut bi ko commencé waaw liggéey bi dafa pariwut ndax yelleef la ci ku nekk ci réew ma nga nekk boo gisee loo xam ne mënoo ci dara ndax say xaalis yi nga xam ne koy dagg muy wàllu impôt di ko def ci réew ma xaalis boobu nu jàpp ko di ko kasakasare mën na ñàkk dan ko war a jël fi ñu ko war a def nu def ko fi liñ ci war a defal ci dëkk bi nu defar ko ndax lii lii ni mu mel dafa ñaaw ci Touba boo xoolee li fi nekk ci ay daara ak ay jumaa yoo xamante ni bu nawet jotee problème mu julli la ne am daara yi moom dañuy génn ak seeni gone seeti feneen wala nu dem luy ji ku am ay moyen nga dem wuti beneen daara waaye fi moom bari na ci kër yoo xam ne sax dan ko dañ koo bàyyi complètement ndax am ndox moo xamante ni nii depuis nawet ba ba léegi bi nawet ba wàccee ba léegi ndox ma ma nga fa fii mën na ni daanaka gisaguñ ci kenn lan mën a wax ndax buñ dee wax kii di maire benn maire euh, Abdou Lahad benn yoon la fi ma sa ñëwee wax ni danañ commencé génne ndox mi yëpp ba nu ko commencé liggéey boobu noonu ba tey jii yi ma lay wax mooy canal yi nga xamante mi ngi nii féetu nu ginnaaw yàgg na war naa mat ñaari at euh, ba mu fa ñëwee war naa mat ñaari at mais liggéey mi moom at lay doogam nawet bii la fi dugg na am mais dafa pariwul dañ ko arrêté ca loolu moo dunul yoon ab liggéey boo ko commencé dañ ko war a àggale loolu mooy li nga xam ne moom moo gën ndax ginnaaw commencé woon nañ ko di ko defar nañ ko àggale dem nañ ba monte ji machine yi moo gën li nu dégg ci li nu jàpp ñun nu wax nu ko nu ni entreprise def ni dañ koo fayut moo tax mu arrêté liggéey bi ñun loolu lañ dégg waaye ñun xamul lan moo ko baaree nan nu ci dimbali ndax mi mi ngi fi ba léegi demut ca bu àggoon xañ na yàlla mën naa dogal ndox mi nekk ci biir kër gi buñ ko pompé dana dem tali bee jaar ndaamaatu jaar ci hôpitalu ndamaatu bi ku ne xam ne hôpitalu ndaamaatu dayo bi mu am ci Touba taliboo boobu mi ngi noonu dafa baare woon depuis nawet ba léegi sareet sax mënu fa jaar waxuma la oto ambulance bi bu dee day wiiri loolu xam nga ni jaadul Hazada